sëriñ bi nee na axrajtumuuni ah, naafiqiina bi annani abdul milaahi wa innani lahu jaahilu di Ahmadu Bamba ne axrajtumuuni ah, génn nañ ma ñu ñëpp xam nañ loolu ñu ko génne ay noon mu ne noonu lay wax ne naafiqiina dañuy wax ci seen làmmiñ ne bi annani dama Ahmadu Bamba abdul ilaahi jaamu yàlla laa

waaye amal maa yi sax la de inni ujahidu fi ulumi wa bi tuqaa qabdan qadiman wal muhaymin sadim nee na damay jihaad wax nañ ko waaye ci xam-xam laay jihaadee ak ci ragal yàlla mooy fexe ba nit ñi xam fexe ba nit ñi ragal yàlla loolu yëpp mooy sama jihaad kon ñi ko tuumaaloon ne ko ay ngànnaay nga denc moom tontu na leen denc ma ay ngànnaay am na beneen bu ñuy waxee ne ci taliban bi lay jihaate kan lay jihaata mooy nekk di mbindaan yi yëpp yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nekk di mbindaan ak di ko liggéey liggéey bu rafet bu set inni mujaahidu fi ulumi l-fiqh damay jihaat ak ci xam-xam ak ragal yàlla ba loolu du wut loolu dafa xam ragal na yàlla waaye fexe ba nit ñi xam fexe ba nit ñi ragal yàlla mooy ci loolu laay jihaat حق القديما من كتاب قد سقى عيونا كرا من خطوات كتاب من دون جاك لين أكرم به من كتاب قد سقى عيونا دي damay traité ba yi kon xaaral sax bu tudd wala saaba yi ku diine bi dañ traité ko min xamaawaat ci xeer wala min xamaawaat ci jox gannaaw lu baax. bay faal. déglu lu baax. Omar ngeen doon ñëpp dañuy jiwoon sabaat bi alxames lañ nekk di jox gannaaw lu bon bidu lu baax. xamaawaat mën naa firi sàggan mën naa firi ku mooy lu baax. Nena na alxuraan bi moo xeetli saxaaba yi yëpp saxaaba yi yëpp moo leen xeetli ñu ci caaxaan génn ci si jóg sëriñ bi ne huma huma alxuraan ci alxuraan jub la wa siraatul mustaqima lana ñu bi ne sëriñ bi punya ku jox gannaaw alquran wala nga du nuyu ko wala nga xëyalee ko boo liggéey da nga daje ak xëyaat yàlla jàll ko. jàng ca Màkka ba mu ne jàng bi loolu la laajte laaj ko am loolu laaj alquran bi mën inna téel ma ko defal

إلا من كان عنه إيجاد واستقامة إلا ما كان من أعمل ذنبا فإنه أداء محسنا jëloon ma jëloon Mame Aly Malick mu ne mboolem wëllu yàlla yi ñëpp bi àndee

وعن التابعين وتابع السابعين لو بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أقلامنا يبقى قلوبنا وقبورنا واطرح في صدورنا واجزل أمرنا وارحمنا لما فيه رضاك عنا